accord voilà donc euh, yow mi ci ligne bi baal ñu tuuti rek euh, ñu euh, jël réaction bu yàkkamti bi daanaka euh, euh, waxul dafa jëf mm-hmm. euh, jëf bi mooy nee na jël na décret pour approcher décret bu mu jëloon pour convoquer collège électoral mm-hmm. mais waxul loolu lan lay jur lu muy jur moom mooy que ne élection du am te wul àpp loolu nag dafa yàgg nekk bëgg-bëgg li tax mu ne ñu ne dafa yàgg nekk bëgg-bëggam ndaxte bu mu demee bëggoon def troisième mandat ñu tere ko def troisième mandat mu convoqué dialogue bi lim ci jublu woon mooy ñu may ko ñaari at mu toogaat ci bopp réew mi laata muy organiser élection dialogue boobu mayu ko li mu bëggoon léegi nag tey jii mu jël nit koo xam ne ay nit ñoo déposé candidature am musul wax sénégalais ne moom mu dëgg ne bëgg na nekk candidat kooku ñu ne ko da nga am double nationalité bi léegi kenn gisu ko kenn déggu ko ba ñu dàq candidature am ñoo xam nuñ ko dàqee mais kooku nga xam ne wane na ne moom tey jii mun na dund te soxlawul Sénégal mm. kooku bu ñëwee. ne léegi ay ay yi nga xam ne ñoom ñoo dugaloon candidature am ñoo taxaw ne léegi ñoom niñ ko génnee jaaduwul parce que dafa am ay nit yoo xam ne dañ leen ger te tudduñu ci koo xam ne keneen ku dul Amadou Ba bi nga xam ne moom ci wàllu boppam déposé woon nañu recours contre euh, euh, euh, requête contre suñu candidat di Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. pour ñu dàq candidat xam ne moom moo dugal recours contre seen candidat di Karim Wade mu jël xaalis géré ko waa conseil constitutionnel wala ñaar ci biir conseil constitutionnel te ñoom juróom-ñaar lañu euh, ñu ne Amadou Ba moom moo ko def Macky Sall bëgg a sukkandiku ci loolu rax ci dolli nee na am na kenn ci candidat yi koo xam ne kooku dañoo découvrir après bi ko conseil constitutionnel ne moom candidat la tàngat la léegi kooku am na double nationalité loolu moo tax moom mu sukkandiku ci loolu élection yi ñu jàpp ne loolu wax bu daanu ci saret la ndaxte bu nit ñëwee mu am càcc boo xam ne def na ko ci ay wax wala ci ay jëf mu nekk candidat kooku war nañ ko mën a génnee ci liste comme ni ñu ko convoqué démb garde ko à vue ñu génnee ko ci liste bi mu bàyyi processus électoral bi continue moom Macky Sall moo fi newoon 2012 bu Abdoulaye Wade duggee prolongé gouvernement parallèle. Euh, gouvernement parallèle moom Macky Sall bi Abdoulaye Wade demee conseil constitutionnel mu nekkoon bu bokkoon ci xeex bi Abdoulaye Wade dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne yow validé naa sa candidature mu ne gars yi man bàyyi naa leen fi dem naa campagne donc ànd ci ak conseil constitutionnel te moom xeexoon na ne Abdoulaye Wade du mos a nekk troisième du mos a def troisième candidature troisième mandat Abdoulaye Wade am validation conseil constitutionnel mu nangu ko parce que nee na conseil moo ko wax barki dem boo njaay bu mu recevoir ay candidats spoliés yi nga xam ne ñoom ci moom la ñu bokk daf leen xam leen gannaaw conseil constitutionnel jox na dogalam dogal boobu kenn mënu ci addu kenn mënu ci am voie de recours moom Macky Sall moo ñëw tey jii te mu ñëwaatoon ne moom dafay garder dafay euh, euh, euh, moom mooy gardien de la constitution moom Macky Sall tey jii moo violé la constitution en abrogeant le décret alors que suba la campagne électorale war a commencer ay candidats yi nga xam ne nangu nañu seen candidature def seen i dépense def seen campagne électorale mu ñëw taxaw tey jii moom dàq na élection yi te waxu ko waxu ko mais da koo ñu jàpp ne loolu lu doy waar la te ñun xam nañu lenn rek la ciy jublu musta nangu mhm. musta d'accord ci li mhm. conseil constitutionnel valider la candidature de Bassirou Diomaye Faye mhm. bëggoon nañu annuler la candidature de Ousmane ko moom lañu ko moom la bëggoon moom la ko conseil constitutionnel defal lu tax mu bëgg en plus ñu interdire Bassirou Diomaye Faye mu nekk candidat mënuñu koo sukk mënuñoo sukkandiku ci dara pour invalider la candidature de Bassirou Diomaye tey jii nag bu amee abrogation décret boo xam ne moom moo convoqué collège électoral mm. doxal na élection yi ci diggante bi dina fexeel Bassirou Diomaye Faye am ay juge am mm. ñu condamné Bassirou Diomaye Faye mm. génne ko ci liste yi dootul mën a nekk candidat parce que tous les renseignements généraux wax nañ ko ne li xew ci biir ci terrain bi du dara lu nit ñi dañu takku ni premier tour la ñuy jëlee parce que Diomaye Faye ne kenn du ci mun dara mu xam ne mu boobaa gàcce gàcce bu rëy lay doon ci moom mu utiliser ay nit yoo xam ne depuis bu ñu nekk député ba tey ci waawam la ñuy wéy. léegi nag ñoo ngi waxtaan mais li wóor te mooy bu 2 avril passé kenn dootul reconnaître Macky Sall comme président la République Sénégal loolu benn la ñaareel bi mooy nañu waxtaan ak bépp liggéeykat bi nga xam ne ñoom mbokk nañ ci force vive du Sénégal pour une campagne de désobéissance civile vis de Macky Sall en tout cas ñaari idées yooyu ci lañ moom la ñu nekk di togg di tabax parce dañoo jàpp ne léegi mënuñoo def ay meeting mënuñoo def suñuy caravane waaye yor nañu suñuy dàll yor nañu suñuy tànk nañ dox wax ak ñu war a waxal bu ko defee ñu jëm ci campagne de désobéissance civique bi nga xam ne dina tax Macky Sall kenn dootu ko connaître au niveau du Sénégal am na ay alkaat am na ay nit yoo xam ne ñoom la fa def leen ay généro ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jox euh, euh, euh, assurance ne mm-hmm. mun nañu tey réew mi waaye nag Euh, askan kenn du xeex ak moom quel que soit ay ndomb tànk yi nga xam ne moom la la yàlla dëkk. d'accord kon su ma la déggee Mamadou Lamine Diante fii ba le 2 avril coalition Diomaye président du def dara. mais xam nga xam nga tey jii bu ñu abrogé la liste. Hmm. Euh, la le décret. oui euh, portant convocation du collège électoral. Hmm. décret boobu moom moo tax tey jii candidature Diomaye Faye am. jëppal sénégalais yi ne leen votel ma ko votel leen ma ko sénégalais votel ko loolu à partir de ce moment également nañu fexe ba désobéissance bi ñu woote mu nekk mu ñu jëmmal ko fii Sénégal. Mm. bi mu xam ne mënul continuer di diriger ce pays là. d' accord alors est ce que le fait wul durée report bi itam nekkul lu leen jaaxal jalook la wax est ce que dialogue boobu aussi vous serez partant su wootee di ngeen dem bokk ci ñuy waxtaanee. mais li mu def ci dialogue bi wane na ko wane na ko ne dialogue amatul fi parce que Karim Wade dafa demoon ci dialogue lii moo am nañu dem dialogue yi te moom mooy woote dialogue hmm. mais bu ko waxee askan bi wala ñeneen ñi nga xam ne jàpp eh, dañ leen di wooyee ay ay ay kilifa dañu naan kii de nitu nitu dialogue la alors que en réalité du nitu dialogue hmm. parce que seen dialogue bu ñu mujjee def ni lan la jur Sénégal ban njëriñ la amal Sénégal yi mu bëgg a woote waat encore dialogue faut nekk dialogue dafa am koo xam ne moom mooy nekk ci diggante ñaari parti yi nga xam ne xëy na dañoo nekk conflit tey jii moom moo ne assemblée nationale ak conseil constitutionnel dañoo nekk ci fitna ana fitna bi ana fitna bi ce n'existe que dans son imaginaire les institutions sont en train de fonctionner correctement dans ce pays là deux mille vingt deux mille onze amoon na fi xeexoo bu fi amoon laata ñuy dem ci élection yi yeneen ati année yi aussi amoon na xeexoo yu am avant ñuy dem xol neexul kenn kontaanul mais ana xeex ñoom ñoo créé un semblant de conflit processus bi continuer donc kii ñu ne euh, candidat boo xam ne ñoom ñoo ko jox parrainage pour mu nekk candidat ñu ne ci diggante bi euh, jàpp nañ ne alkaati euh, kii gendarmerie na ko ne ko nga wuyu ñu garde ko à ne ko génne ci liste bi processus bi continuer ñoom ñoo jox Rose parrainage ah mais Rose yow nga xam Rose nekk ne ci bi processus bi continuer processus bi continuer parce que loolu moom mooy dëgg leneen loo def rek da nga def lu la neex te tey jii Macky Sall dafa woon Sénégalais yi ne moom dina continuer def lu ko neex te kenn du ci mun dara tey jii suñuy mbokk ñoo ngi ngaso suñuy mbokk faat nañ leen kenn xamul lu leen faat ak kan moo leen faat ak lu tax ñu faat leen bëgg nañu yooyu ñu tiré ko Sénégal n'est jamais nga jàpp ko dugal ko kaso jaay ko doole te tegoo ko ci fenn tegoo ko fenn mu nekk kaso nga ne yow da ngay woote jalo kooku du am du jalo du am du jalo donc moo xam jalo lay def moo xam xawaare lay def moo xam lu mu def na ko def mais ñun lu ñu wax mooy le 2 avril bu passé moo xam élection am na wala élection amul Macky dootul nekk président Sénégal. leer na jërëjëf. jërëjëf Mamadou Lamine Dianté bokk ci coalition Diomaye président euh, nekk euh, le coordonnateur du lakos mooy leader yi nga xam ne ñoo bootu euh, ci ginnaaw Ousmane Sonko mi nekkoon seen candidat allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi